jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci leeral TV leeral point nuyu nañ leen bu baax a baax siyaar leen bu baax a baax di ñaan ci yàlla def jàmm ci réew mi waaye tamit di ñaanal ñi nga xam ni ñoom la caabi féete gannaaw suñu borom delloo si leen si seeni biir njaboot ndaxte ñoom ci askan wi la ñu bokk ci réew mi la ñu bokk mbokk yi tamit di ñaanal ñi nga xam ni ñoom ñoo tëdd ci lalu hôpital yi ñu sonn lool muy malade yi ñu leen ñaanal suñu borom fëgg seen i bopp ba ñu mën a dellu si njaboot ji ndax ñoom ñëpp si société bi la ñu bokk war nañ leen ñaanal baax a baax gestu leen ndax ay borom baax rawatina waa chambre 11 waa chambre 10 chambre 4 PC yi ma leen di nuyu su ma jàmbaar yaa fa ne parce que dañ lay béggee bu baax baax ñoo ngi leen di ziar yi te dañoo seet si xale boo xamante ni bu ñu nee yar ci mbër ci moom la ñu ne bu ñu nee fulla ci mbër ci moom la ñu ne bu ñu nee fayda ci moom ci mbër ci moom la ne muy prince di xale boo xamante ni yaram ak fullaam ak fayda ak respecté doomu aadama tax na wax dëgg yàlla ñu bëgg koo dékk suñu micro te réew mi munoo munoo wax ci làmb ci kenn te boolewoo ci xale bi nga xam ne prince te xale boo xam ne mbooloo mi bari na li topp ci ginnaawam mafia bi bari na waaye tamit xam ngeen ni mu mel ci làmb mooy borom làmb ji te mooy borom dëkk bi prince ñoo ngi lay nuyu parce que fi ñu la fekk fii fekk nañ la si biir koñ nga taxaw ak jàmbaar yi bàyyi faali ñëpp ci biir ah gis nañu jàmbaar yi toog sa wet nii prince nuyul mbokk yi ñi mbokki internet yi lay seetaan ci leeral tv leeral point net. waaw ginnaaw bañ sant yàlla ñu ngi nuyu tamit mbooloo bi yow Fallou bu baax yaa si caméra man waaw di nuyu gars yi fi teew yëpp ku si nekk sa tur sa sant waaw di nuyu waat tamit suñu dëkk bi ginnaaw raay nuy nuyu fépp tamit doomu Pikine nekk ñu ngi koy nuyu si turam ak santam bu baax a baax. avant tout sa digganteeg waa ginnaaw raay sa digganteeg fans yi waaye tamit sa digganteeg supporteru géejawaay yi eh, Pikine yi ni ñuy ni ñuy déranger boo nekkee ci làmb sa digganteeg ñoom lan la daal Prince. waaw Fallou lépp yàlla la tey jii noonu yëpp nga xam ne bu ma amee combat. da leen jaral lu ne muy Pikine or Pikine tamit gars yi fu nekk lañuy jóge di ñëw tamit di ñu soutenir waaw ku si mel ni sunu grand chef da si daj ay coono tamit di ñu bu baax sunu combat waaw gars yi tamit lépp tamit xam na rek yàlla la daal waaw tamit bu may bëre ba tey ñoom ñu ngi may soutenir nekk sama ginnaaw tamit arène ba tamit loolu lañ fa yóbbaale. yar gi ngay wane ci biir koñ bi par rapport ak band bi ngay teg ci géew bi. waaw tamit boo tourné yi tamit gis sa ginnaaw turbine bi waaw foofu mënoon fulla ak ak jom rek nga mën a wane waaw te dañoo nekk tamit ay doomu ginnaaw raay juddoo si banlieue bi tamit waaw mënuñu dem si biir arène bi tamit di wane yaafuus. da nga bokk ci làmb. waaw dama bokk si làmb moo tax ma bàyyi lépp tamit topp làmb waaw gars yi tamit di ma gën a dooleel booba tey seetaanuñ ma benn yoon wax fa dëgg yàlla waaw te làmb ji tamit sama option mooy xam nga rek. dem fu ñuy dégg champion ñu dégg ma fo waaw loolu laay ñaan suñu borom dal. yaa ngi si ñaata komba yaa ngi si ñaata victoire. waaw maa ngi si trois com maa ngi si sama premier combat laa ñaax waaw am trois victoire. nga jëm ci xale boo xam si ni mbër yu bari dañ ko fee bàyyi mu jël sa avance muy tubaabu joor. waaw tubaabu joor mbëri la mbër la rek comme yeneen mbër waaw mais tamit avance boobu noonu du dara bu ma gisaa doon beneen avance nii dama xëy lekkaat. ndax bëre mooy sama métier tamit waaw tubaabu bi joor moom du fee moom wax dëgg yàlla. lan moo tax du fee. du fee parce que man xam naa ko ma doon ah xam naa tamit bu ma amee làmb tamit gaa yu may dar yëpp di ànd ak man ñooñu mënu ma indi leneen lu dul victoire waaw moo tax mbër mënul rëy sama kanam. lan moo tax nga ne mbër mënut sa kanam ful bu nekk sa ginnaaw bu nekk sa ginnaaw la wala lan la. waaw loolu tamit am na si solo bu baax a baax ndax heure bu ma tourné bu ma waroon def benn dama koy yokk def ko ñaar ba ñett. waaw moo tax mbër mënul rëy sama kanam waaw. sànq dañuy wax ci biir waxtaan nga ne euh, sa digganteeg jàmbaar ji nga xam ne boo amee combat muy sonn ci muy Abdou Seck. waaw Seck sama grand la waaw Seck moom sama grand la moom wax fa dëgg yàlla daf may woo tout le temps même bu dul làmb sax war dañuy déggante normal waaw mu nekk koo xam ne ku baax waaw sama sunu waa koñ yëpp tamit rafetlu ko wax fa dëgg yàlla muy bàyyi yiteem yëpp tamit di ñëw bu ñu amee combat di sonn. waaw kooku noonu sunu grand la tamit waaw wax dëgg yàlla sunu mag ju baax la. yàlla na lan mooy sa activité. waaw moom waaw damay nekk mbirum bopp waaw di business yaa a xam. saison bi ubbi na jël nga komba lan la ñu mën a xaar ci prince. parce que dañuy xaar euh, euh, mbooloo mi nga indi woon euh, ci ginnaaw wala prince saison bi di ñëw lan lañ mën a xaar ci prince parce que Pikine soxla nañu roi des arènes pikin soxla nañu xale bu mel ne yow tey ji mu am fu mu jëlee làmb yóbbu ko ci kaw lan lañu mën a xaar ci saison bii di ñëw nii saison bii ñu dugg nii. saison bii di dugg nii moom bii ñu dugg nii maa ngi ñaan suñu borom tamit kattanal ma defal ma jaamu tamit ba lépp lu ma si séntu rek mu yombalal ma ko parce que saison bii nii moom lu mu gàtt gàtt bëgg nañ si bëre quatre komba bëgg nañ quatre combats yëpp ñu daan ko ndax fu gars yi toll foofu lañ bëgg a egg te foofu noonu bu ñu fa bëggee egg tamit. foog tamit combat yi dugg si xam nga ñu fexe nuñ ko rayantee yéeg kaw waaw. ay prince war nga fi bëreeg ay prince ay prince Ada Fass combat la. waaw loolu yëpp combat la mais ndànk-ndànk rek waaw ñooñu noonu ñëpp xam rek du ma fi nekk di leen di leen tëkkoog di leen tàllal loxo dama gëm ne yàgg-yàgg dama leen di fekki muy Ada Fass ak keneen ku dul Ada Fass yàgg-yàgg damaa gëm ne dama leen di fekki. Mhm. Ndiol ñoo ngi lay nuyu. xale bii di prince làmb bàyyi ko xel mu am ful boo xam ne da koy déranger biir arène nationale tey xale bi tey jii boo amee loo ñuy wax ci xale bi lan nga ñuy wax. moom moo wane rek. loolu affaire yi moom lépp too fay too rek doomu aadama moom xam nga loo rek moom la la gars yi fay mu yokku ko rek waaw gën a fonk ay entraînement am xam ni waaw làmb moom mooy loolu am na si cër daal bu ko buggee am na si cër bu ko bañee am na si cër. waaw kon moom na def li ko war rek incha allah am na yaakaar ne dina baax quoi moom suñu rakk la suñu lépp la. bokk na ci mbër yoo xamante ni gis nañ par rapport ak mbër yu bari euh, dañuy wàlliyaani seen dëkkuwaay mais moom dafa toog biir koñam toog biir seesam toog si gétt gi di xaar bu amee dërëm mu lekk bu amee ñaa dërëm mu lekk. mais noonu la mbër day am gétt loolu moom moom bu ko defee loolu la war a def bu ko deful loolu la war a def ndox ba nga xamante ne mi ngi nga bu àdduna neex rek ba mu soppi loolu xam nga li ma waaw nag gën a jàpp rek xam ni loolu mooy loolu mooy doxal waaw loolu mooy doxal réew quoi waaw affaire bi moom kenn amul lu dul sa gox man lu muy métti métti métti métti mooy loolu xam nga kon ku nekk daal moom xam nga sa waa gox bu ñu jëlee lépp ne la yow la yow teel leen ko quoi drapeau bi xam nga li ma la wax nii deret mooy gën sax xam nga drapeau bi nga wàcce ko waaw. Papi jàmbaar ji Baye Fall bi doom day Abdou Seck. yàgg na maa ngi naka yitee nag Fallou ñu lay siyaar gaan di la ndamoo di tiitoo di rafetlu sa ñëw bi nga ñëw fii tey ko ak déplacement bi am na solo ko quoi merci. seen digganteeg boobu prince borom dëkk bi. prince waaw mooy borom ginnaaw raare loolu moom <laughs> sañ ta bañ la quoi dañ koy ñaanal gudd fan rek ak wér gu yaram waaw mu gën a góorgóorlu rek lépp lu def benn tam mu koy def fukk waa te xam ne tamit daa mu ñu yaakaar si moom am ñu topp si ginnaawam te bëgg ñu defet quoi wax ñu si dara. dégg nga jàmbaar yi li ñu wax. waaw gars moom lu ñu wax lépp dëgg la parce que tey jii ñoom ñoo ma yar man papi sama mag la waaw sama mag la wax dëgg yàlla di sonn si man lu nekk dama ma koy defal waaw comme tey jii comme lu mu wax rek ak Cheikh waaw deret moo gën drapeau bi di wàcc. parce que tey jii bu ñuy génn ginnaaw raay ginnaaw gis nga nu muy mel waaw waa Pikine ñëpp dañuy ñëw gën ñoo dooleel waaw ak képp kuy bëggee Prince fu mu nekk muy jaamu gën géejawaay gaa yëpp dañuy ñëw duñu dooleel kon tey jii mënuñu mënuñu leen fayee leen lu dul indil leen ndam waaw di ñaan suñu borom heure bu ñu génnee mu ñu koy yombalal di ñu indil ndam parce que ñun ndam rek moo ñu war ndax dañoo boox si làmb te tamit mbër nekk si yenn secteurs yi tamit waaw gis nañ ñu leen seen waa secteur tamit di dooleele ñu nekk bañ nekk ay champion gars yi fii tamit ñu ngi may. est-ce que boo boo amee combat say waa gox dinañ la dooleel. ci ci lépp li ci lépp loo soxla kaar wala billet yeeg ci sa est autorité yu mel nekk fii dinañ la dooleel. waaw tey jii tamit moom wax dëgg yàlla bu ñu waxantee dëgg rek lu weesuwul gars yi nii nii amul keneen koo xam ne dañuy teg loxo bu ñu amee combat ak sama yenn gars yi nga xam ne ñoo ne extérieur bi xam nga rek ñoom dañ ciy sonn bu baax a baax mais wax dëgg yàlla autorité yi tamit ñu ngi leen di tàllal loxo bu baax waaw ñu siy jéem a jàpp waaw ndax ñun tamit amuñu lu dul gox bi te doomu gox bi lañ. waaw bëgg nañ tamit ngeen teg ñu loxo bu baax rawatina tamit ñu ngi jëm si bis bëgg nañ tamit muy billet muy transport tamit ngeen jàppale ñu si bu baax a baax bëgg nañu lool. nga jëm ci bis bu mag nañu ñëw ci bis bi nga jëm ci bis bu mag wàccaayu bis bu mag bi nga jëm parce que saison bi ubbi na li ma wax léegi saison bi ubbi na te arène nationale soxla na la te mbooloo mi sa ginnaaw te bi yaa koy téye sa làmb ji nga jëm bis bi. waaw làmb ji moom làmb ju mag la wax fa dëgg yàlla. ndax Siteu Lac de moom rek tëj na esat waaw te jii moom làmb ju mag la ñuy bëre mais xam nga rek. ci bis boobu ngay bëre. si bis boobu laay bëre le 19 novembre. non kon yow yaa ngi yaa ngi dugg ci bis bu rëy. waaw bis bu rëy wax dëgg yàlla. non mais bis boobu dina garaaw Mansour de bis bi nga dugal booy bi dina garaaw de Siteu Lac de nga dugal ci booy bi no Mansour di nga tëj arène nationale parce que booy bi dafa bari mbooloo. waaw Siteu Lac de Guiers ñu dugal ñu si dañ yàlla bu baax a baax tamit waaw. waaw di ñaan yàlla tamit yombalal ñu ko ñu jël ndam li xam ma rek indi ko fii ginnaaw raay wàllu ko yalmin bi tamit waaw ndax diggante ginnaaw raay jaamu gën moom mooy loolu waaw ay frère lañ. ñu gis ne diggante jaamu gën ginnaaw raay ay doomu ndey lañ ay xarit lañ ay soppe lañ dem na bu mujj gi euh, lamb xajatu fa. làmb xajatu fa làmb mënatu leen boole parce que ku wax ginnaaw raay ne jàmm gën ngay bëri ci bis boo xam ne si ni yalmin bi borom dëkk parce que bu ñu bu ñu nee làmb si bu ñu nee làmb Siteu bu ñu nee làmb làmb gox làmb àdduna Siteu yow ngay ngay ngay bëri ci bis boobu xam nga bis bi lu mu la jaral. waaw bis bi moom lu mu jaral benn supporter rek jaral na ma lu ko raw ndax dëgg yàlla waa jàmbaar yi ba ma wooyee rawatina Papa Sow loolu la ma wax mu ne ma sa avantage nga bëre si làmb Siteu bi waaw bëgg nañ la see dugal ba yàlla def tamit nuñ ma si dugalee mu ne ma xam ma rek gars yi dañuy demalante te fii ma wax dëgg yàlla bu sit amee làmb gars yi dem. waaw gars yi luñ jàppoon lépp dañ koy bàyyi demal ko làmbam waaw tey jii may bëre si làmb si Siteu tamit daf may gën a yokk courage rek waaw daf may gën a yokk courage bu baax a baax. Mhm. mbokk yi dañuy jëlaat keneen koo xam si tamit si la bokk muy muy borom kenkaari bi mooy kan. Moodu mais parce que boo ñëwee Massé Waranka boo nee boo laajtewul Moodu kenkaari doo dem de te moom mooy borom kenkaari bi fi gën a am doole nag di jaay lu baax lu qualité waaw Moodu maa ngi lay nuyu. waaye ñu ngi lay ziar jëwriñ ñu ngi lay ziar di ziar mbooloo mi fi teew ñëpp waaw di sant ñëpp tey gërëm ñëpp comme liñ leen wax rek waaw booy bi moom wax dëgg si yàlla sunu kanam la juddoo fi la yaroo mais niñ ko mës a xamee si jàmm ak salaam quoi waaw nitu jàmm la baax na jox na respect ñëpp Guinaar Rail bi yëpp boo gisee ñu topp ci ci ginnaawam di ko di ko jàppale wala bëgg ba mu am fu mu yegg dépasse moom moo ko wane quoi ci yaram ak léppam waaw dafa yar na wax dëgg si yàlla fii moom da nga koy gis chaque jour ñi muy àndal ñëpp ay morom non du déranger booy bu day teel a tëdd booy bu yaru la noo xamul lu bon moom nice <laughs> moom xam nañ ko ñoo ko yar wax yàlla li ñu xam ji moom moom maam nice mi di koy mbër ji ak doxalinu mbër ji yëpp mi ngi ci moom a ñi ngi ñaan rek sunu borom comme liñ doon wax projet la quoi ñun ginnaara yëpp nañ ko xam projet la boo xamante ne dañ ñun daal roi des arènes lañ la ñuy def quoi loolu daal mooy suñu bëgg-bëgg waaw li ñuy wax nag ginaaraay moom wax dëgg si yàlla gëm nañ ko te nu nit gëm nañ ki ñu àndal ndax xam nañ ko man wax dëgg si yàlla sama yara sama côté la yaroo fi la defee yëpp wax dëgg si yàlla bëreegul xeexagul waaw li mu man waneegu ko si arène te ñi ngi ñaan yàlla lafal ko cat ba ba fa mu bëgg a yegg suñu borom yeggale ko fa waaw gone ko am yar la man moom moo tax man dama doon ànd ak tubaabu joor numéro un ak doon ànd tubaabu joor numéro 2. yàgg naa si làmb xam naa si lu ne comprendre waaw moo tax moom dama xawan kii mais moom bi mu ñëwaatee dama ñëwaat taxaw ci ginnaawam pour ñaan yàlla jàppale ko ndaxte moom yaram moom ak ak ak tegginam laaj na xam nga ñu jàppale ko quoi. te ginnaaraa gi da ciy sonn ci lépp fu nit xew la da nga koy gis wax dëgg si yàlla ñun ñoom li ñu man mooy sunu borom dimbali ko ba mu nekk roi des arènes te am nañ ci yaakaar am nañ ci yaakaar am nañ ci yaakaar. jërëjëf mbokk yi kookoy Modou Kenkare grand maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax sëñ bi. nice prince seet si woon ko gisee. ah prince moom wax dëgg yàlla ak yeneen nu mu nekkee si gox bi nu mu nekkee si gox bi maanaam yar teggin la fi wone ba tax ni gone yi bëgg ko te ñun moom rek lañ am amuñu keneen di ko ñaanal yàlla sunu borom musal ko si cet musu baak balaa musal ko si lépp luy lone ba liimu mu mbëbët nii sunu borom dimbali ko. waaw ndax moom làmb la yaakaar di ko si ñaanal suñu borom daf ko mu réussir yaa ngi dégg teral si ay woy juróom ba teral si ñoo xamante ne maam ñoom lañ ñu koy yaakaar yaa ngi dégg ñun nag kii rek lañ am amuñu keneen amuñu keneen moom lañ am toppuñu kenn man man man laa wax man ma kenn man mooy sama mbër xam nga ragal féete day xane wërsëg man kii mooy sama mbër. jàmbaar ji laa am barki Seex Ahmadou Bamba Xaadim Rasuul te di ko ñaanal nag lu mu mbébét yàlla sunu borom suturaal ko yaa ngi dégg yàlla sunu borom dafal ko jàmm dafal ko tawféex ba lu mu mbébét nii sunu borom dafal ko mu réussir waaw ndax moom ku baax la. jërëjëf waaw. grand kàddu yi nga si sànni lan la. waaw salaamaaleykum euh, waa leeral point net ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di rafetlu déplacement bi ngeen def ba ñëw. dama traversé rek gis mbooloo mi ñuy interviewé maay booy euh, muy sunu mbër mii nga xamante ne nii vraiment ñu naan ko prince ñun sunu jarbaat la sunu kanam la juddoo mais li nu xam ci moom yàlla na ko sunu borom lafal cat parce que booy bi champion lay doon parce que li war a def nit champion yëpp mu ngi ci moom macha allah parce que li njëkk mooy gis nga mbër da ngay am gétt am ñoo xam ne nii ba dara dul dara ñoom nga àndal dara mënul fëkk sa bët ba nga jéggi ñooñu. booy mi ngi ci maay booy ci côté aspec quoi entre doomu aadama dafa fonk nit bu loolu weesoo entraînement kenn du ne ko jugal entraîner loolu moom leneen la ñuy wax kenn du ne ko jugal entraîner mbapat yi ngay gis nii fii ba fooy dégg foo xam ne nii territoire làmb la xam nan booy bi marqué marqué na fa empreinte am donc li koy ñaanal mooy fii mu teg tànkam bu mu ko bàyyi na jàpp ay nitu démbam entraîner dafa am wàll ci làmb de te lii di ngeen fi ñëwaat beneen ñëwin boo xam ne incha allah. di nga ne ana nijaayu booy boobu doon expliqué kii dafa am cër ci làmbu te dina ko jëli ci kàttanu sunu borom te ñun li nu am ci moom mooy suñuy wax mi ngi ñuy dégg mais bu doon ne dañuy wax mu xool géej ñun duñ ko faale mais day daf ñuy déglu parce que ñun ba ñuy seetaan làmb judduwut gone gu ndaw la yaa ngi dégg léegi nag ñun li ñuy am mooy ñun ñëpp ñu ànd ñaanal ko moom ñii la am xale yi ñooy ay gaynam moom booy yi la am ak xaritam yi nga xam ne nii dañ ko jàpp ñoom tamit booy yi nga fu prince dugg ña nga fa man dama leen gis duñ ko bàyyi mu wéet donc loolu ku ko am da ngaa war a fonk ñooñu léew nag booy li lay ñaanal mooy lii rek barke alxuraan li nga ci mébét yàlla na la ko sunu borom defal ay ndami ndami ndam lan lay ñaanal ci barke alxuraan yi kontaan nan nag ci déplacement bi ok tamit du ñàkk tamit ñu ñu jël fa parce que bu ñu ñëwee fii dégg ay kàddu yu rafet yoo xamante ni say mbokk ñoo ngi koy wax say am di jàmm loolu tamit dinañ rafet tamit ñu wane ko mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan ci leeral TV leeral point net naam lii bett na la mais ci ñëw bi fii gis nga ni mu mel mu ngi mel ne kuy waaj dem stade wala koy waaj def benn open press sëñ bi maa ngi lay nuyu grand. oui bi naka la. Ibrahima la. Ibrahima loo ñuy wax ci presse tey. oui ginnaaw bu ñu sant yàlla julli si bi sant suñu ñaanu waajur. waaw parce que presse moom nekk na champion boo xam ne foogee wuñ ko woon ne sax dina doon ba doon champion parce que ñun ñii di wax ni. ñun ñoo njëkk ñu ñun ñoo njëkk a bëre Prince waaw ñu ñoo njëkk a bëre Prince ñu dem ba commencé gis Prince di am beneen jikko boo xam ne ni sax foogu nu ko woon si moom kon dinañ dem ba jàpp ne kon am nañ mboru ginnaaw lu ñu musul woon gis fii wala lu ñu musul woon bu ñu demee ba dégg ko wala ñu dem ba gis ko tamit dañuy sant yàlla rek parce que tey jii ñooy bëgg doon roi des arènes bëggoon nañoo am fi roi des arènes mais mënuñu ko am wala mënuñu ko gis mais buñ demee ba gis Prince lañ la la xel it dellu lañ mun a jàpp ne kon bientôt dinañ am eh, ni koy waxatee roi des arènes mais comme comme moom moo ngi ci kawam waaw di métier ba léegi rek kon dañuy gën a ñaan rek waaw affaire bu gën a jëm kanam ñu koy ñaanal nag waaw réussir quoi. jërëjëf bàyyi ma doxantu ne jël Baye Fall maa ngi ci loo ne. Ah, amee kaddu yooyu wax prince ci làmb lan nga koy wax. man prince mooma man moom man moom lu ma koy wax moom na yokk entraînement bi rek bañ a déglu kenn ñu mu nekkal moom ah, moom na na téye ñooñu rek fi moom ñu ngay nekkal rek ngay mun a nekkal. waaw waaye yenn conseils yi sax ay mbër yu mag yooyu noonu sax bu mu leen sax lijjanti parce que ñun bi ñu fi nekkee ba léegi bu mu dalee am combat ba léegi amul benn mbër bu mag bu ñëw gaaleem. kon bi ngeen fi nekkee ba léegi amul benn mbër boo xam mbëru Pikine la ñëwul si këram. kenn ñëwu fa mbër yu mag yëpp. biir ginnaaw raay fii ñun soxlawuñu leen ñun soxlawuñu leen ñun xamoon lañ bëgg ñun luñ bëgg si biir làmb ñu nañ ko bëgg a jëli te loolu dañ koy jëli ñun xaaruñu si benn mbër bu te ñun suñu xaalis mën nañ ko si def pour mu am loolu noonu ñun xaaruñu kenn si dara ku ñu mën a jàppale nga ñoo jàppale ku ñu mënul jàppale nga toog xaar waaw ñun man loolu laa am ko waaw lu may wax. jaajëf kontaan si musala maire bu nekk fii musala maire bi nu mu tudd Waly Ndiaye kooku gësuwul jeunesse su ginnaaw raay. dañ ne dañ ñoo seetaan sunu mbër daa am combat du si dugal dërëmam ñu nag duñ ko ñaande duñ taxaw si moom naan ko ay Waly Ndiaye ñu lii wala lii ak lii mais un jour viendra moom dina soxla. te boobaa nag lay. est-ce dem def ngeen déplace dem déplacé wu ngeen dem ba ci moom. ñaata yoon lañ def déplacement yàgg na. bañ dalee def déplacement yàgg na yaa ngi dégg mais moom maa mun naa la wax ne moom talul sax ginnaaw raay moom fee la tal marché poisson dama bëgg maa mu gëstu ginnaaw raay ay zone u ginnaaw raay mu leen di gëstu ndax ñun kii lañ am prince mbër kii mooy sunu mbër ñun na ko gëstu bu baax jàppale ko bu baax a baax a baax. loolu am solo bu ko jàppalee jàppale champion parce que. Prince ku ko xam xam na ne champion la ku xam xam mbër mu yaru la man li ma gën a neex ci Prince mooy mbër mi dafa yaru bu nekkee ci biir làmb nag day day géem de bu nekkee ci biir làmb day yor beneen jikko joo xam man xaw ma ko du ko ñeme Prince dégg nga fi kàddu yi ñu fi wax yëpp dégg nga li say mbokk wax li say am di jaam wax li say xarit wax tey kàddu gu mujj gi lan la. waaw di leen sandaat bu baax rek waaw kàddu yooyu yëpp ay kàddu ñaax la rek. ñoom ñoo ma jël ma seen bopp. am rek gars yi tamit comme lu ma la wax rek lii dafa yàgg ndax ñoo foowandoo ñoo yarandoo boobu ba tey tamit dara musul ñaaw waaw ñu may jàppale fu nekk débutant mbabat laa wax nii ñu may jàppale fu nekk waaw di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm rek may leen gudd fan ak wér ba ñu fekkee lépp ñu fekkee ndoo lépp waaw yàlla defal leen jàmm bu baax a baax waaw di santaat ñëpp ku si mel ni sunu waa kër tamit di leen sant bu baax di sand sama yaay bu baax a baax waaw di sand sama gaay yi tamit waaw sa adversaire moo ngi lay seetaan lan nga koy yóbbante. waaw adversaire bi euh, bañ gisee keroog rek comme lu ma ko waxoon lépp maa koy def na taxaw rek xaar ma. bu dee bu dee bëre maay bëre dem. bu dee xeex bu dee xeex maay dóor mu daanu. waaw mais sañ nga jàkkaarloog tubaabu jor xeex ak moom. lépp maa koy def kay. prince. tubaabu jor kay fu mu toll nii na taxaw rek pare. yaa ngi si gétt gi de gars yi wër la de. sañ nga jàkkaarloog moom xeex ak moom. Fall bu ma duggee si géew gi lay gën a garaaw sax waaw. waaw jël dem rek lañ xam tubaabu joor lépp maa koy def na taxaw rek xaar. bu dee ambiance. lépp def tubaabu joor kay mooy lool. du fa indi dara man kay menum Siteu moom moo fay jaaxal mais lu weesul Siteu nit du indi si stade bi lu ma dul indi. yaa koy tëj. waaw yàlla xam na loolu kay. jërëjëf nuyuwaat gaay bu baax rek di leen wax ni combat bi le 19 la le 19 novembre na si gaay yëpp ñëw jàpp rawatina waa Pikine waa Talib Bees waaw waa Talib Bees waa Talib Mag waa waa koñu Afia bu baax a baax ñoom Abdou Baye Karim waaw waa waaxi naan ñoom Dev Afia waaw Dev iPhone ñoom Usu Lawbe waaw di sant gaa yëpp di nuyu tamit ñoom lamin Jabaate sama doomu ndey ñoom Amirou Papa gaa yëpp tamit ñoom Balla waaw di bëggawaat gaa yëpp tamit waaw di nuyu ginnaaw raay bu baax a baax waaw ginnaaw tamit bëri na ay champion bu baax a baax neen gaa yi ñëw di gëstu tamit waaw ñun ñëpp ñoo far mooy loolu jërëjëf Fallou di kontaan tamit si ñëw bi fii bu baax a baax waaw di leen ñaanal seen euh, site bi yàlla dem ba nekk ay télé bu mag a mag waaw di sant sama mag papi bu baax a baax tamit waaw di nuyuwaat gaa yëpp di bëgg ñëpp di sand ñoom Badu ak sunu waa écrit baay si xel bi waaw di nuy sunu waa écrit baay si xel bi ñoom Père Ndaw bu baax a baax waaw sunu coach su naar nga xam ne tamit lu nekk la ñuy defal sunu coach waaw sunu coach su zoo tamit waaw ñoom Ron ñoom Kabi ñoom Alaaji Diop ñoom ñëpp di leen sant bu baax di leen gërëm. jërëjëf mbokk yi li leen indiloon ci leeral TV leeral point net di nuyu papi champion bu mag bi Baye Fall bi di ko nuyu bu baax a baax jàmbaar la sunu teewaay fii moom moo ko waral di ko nuyu di ko ñaanal sunu borom defal la ko jaam nii la nit boo demee sa boo nekkee ci gox nga gis sax xale boo xam si ni moom ci gox bi di ko doxal da nga koy teg loxo da nga koy jàppale ñu lay ñaanal papi sunu borom defal la jaam di ñaanal nag sama jàmbaar joo xam ne su man la bokk ñoo far ñoo bokk jàmm gan Abdou Seck di la ñaanal sunu borom defal la jàmm mbokk yi di leen jox dig daje rendez-vous beneen yoon ak Leral TV Leral point net jërë ngeen jëf